salaamaaleykum mbokk internet euh, GR info ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax ni ñu ngi nii taxaw ak waa Jida Kaw waa bokk gis-gis la a Thiaroye Kaw waaw soxna si na nga def. ça va sëñ bi. si loo nekk. maa ngi si jàmm. est-ce que mun nga ñëw wax tur bi sant bi. ak maa ngi tudd Astou Ndiaye. Astou Ndiaye. waa dëkk Djidda Thiaroye Kaw. ah Djidda Kaw yéen fi teewal waa Djidda Thiaroye Kaw. waa ñu ñëw teere waa Djidda Thiaroye Kaw tontu Ousmane moo ma yàdd moo ma fi yabal ah, coordinateur gis-gis. ah Ousmane yàdd la coordinateur de Djidda Thiaroye Kaw. waaw euh, Astou ah, tey président Pape Diop teg thème am importance. muy yéen jigéen ñi. yéen ñi nga xam te ne si yéen ay jeunesse bi. seen rôle ak seen place ci euh, politique. ci parti politique yi. léegi ñi lay laaj lool lan moo si sa xalaat yow

gëm sen gëm gëm ni ñuy def daal tamit ñu fas yoom takk tubay goo su munee benn goo su munee benn ñoom ne ñaar ñu liggéey fas yoom comme ni ñu ko nit ñi di waxee rek. jërëjëf Assou Ndiaye moom moo teewal jigéen ñi nga ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax di remercier le coordonnateur Ousmane Yade bu baax a baax a baax te liggéeyam bu mucc ayib bu muy def ji de caaree kaw loo wax monsieur Ousmane Yade ah l'essentiel daal ñu ngi koy gërëm daal bu baax parce que soutenir ñu bépp bépp côté daal waaw tuutaluñu daal suñu fu ñu dëkk daal tuutaluñu waaw ñu ngi koy gërëm gën kaa sant tey li waral li yëpp moom la waaw